wa Abdou Karim Fafana porte parole gouvernement il di une arrogance di jay ni mom c'est lui qui répond à toutes les questions moy au gouvernement c'est lui qui répond c'est le plus arrogant à part les deux autres bâtards je peux dire Ismaël Major Fall ak euh, ak euh, Antoine Dion. yow Abdou Karim Fafana, il ma yow laay question du du porte parole gouvernement bi yaay sénégalais lay poser posé question yow nga tontu leen 23 janvier 2021 Union européenne l'immigration immigration clandestine ñiy dugg ci gaal Là, di poser la question 180 000, millions d'euros Union européenne au Sénégal 130 milliards de milliards francs CFA pour les voyages. voyager ci gaal bi a voyager ana 130 milliards francs CFA Je veux bëgg nga avec ta grande gueule y arrogant nga nga wax fu mu dugg 130 milliards xam ngeen ko moy ki ñaata loolu boo ko ci gal yi boko ko ci jeune yi yaakaar nga dinañ ko voyage boko ko ci sécurité ak geej gi nit ñi dinañ ko voyage bay dee ngeen jënd ci ay quelques moteurs ak gal yu bon valeur 2 milliards ana 128 milliards yi des yëpp allez tontul ci lolu lek ngeen xaalis bi comme vous êtes des voleurs comme d'habitude wala Macky Sall jël deuxième tek ci encore loxom 94 milliards yi Mamour Diallo sàcc xaalisu Jambur ben famille ana 94 milliards ibil sa grande gueule ngani fan la tollu enquête bi. Nabi Vision. ban ne product ni 39 milliards ba d'or sen wax 4 milliards yi 6 milliards yi ñu jëlat ci pétrole yoy yooyu yëpp dolliwaat ko ji en tout boy xol même euh, Birame sek nee 34 milliards la ba paré projet bi nax say jeune yi ngeen néewoon da nga leen employé yëpp yow yaay porte parole gouvernement bi tu défends tout ouvre ta grande gueule nga tontu sénégalais nga né ana 34 milliards yooyu mam euh, euh, mam mbay ñaa sàcc anamu Mansour fay sunu 80 93 milliards yi mu yi ñu lebal mu duggal ko compte am def ko compte bloqué anamu lo ci wax ci lolu do ibi sa grande gueule nga tok ci télé ni li ak li ak li waxal ci lolu mam boy jaaw bi genn télé di taxaw di wax di naan day jema a charmer sénégalais na genn wax ñu déclaration patrimoine ñaata la am après ngeen calculer ba mu dalé liggéey ba légui bu di fayé ko sa léram rek est ce que mën des milliardaires multi multi milliardaires amadou ba do genn yaw mi yor sa lamine bu reuy ni amadou ba na def déclaration patrimoine premier ministre ñu xol milliards yi muy am yépp pan la ko jëlé des centaines de milliards ñom ñep ko ci gis am na ay centaines de milliards ak xaw ma Daouda Diallo la tudd xaw ma kooku nekk palais moom na def déclaration patrimoine mo duggoon ci affaire armement 45 milliards yi ana ñoo ñepp tous ces voleurs là ces milliards là lan motax do ci ibi sa grande gueule nga wax ci yow mi tok nga non waru ñu wax dañuy attaquer justice dañuy attaquer institution yi bi Mansour fay di dak magistrat yi nan leen allez dégager kenn duma euh, auditer fo nekkon yow koku saagul institution yi wala koku mom c'est normal mun na ko saaga mais ñeneen ñi non ñeneen ñi fi taxaw di tëkku seen institution yi matin midi soir naan c'est des ay Pastef la ñu bokk ana ñu saaga ñu institution yi. wala ñooñu c'est normal lu na nekk neex wax tu ouvres toujours ta grande gueule pour que répondre répondre ci loolu ñaar yi nag naafiq mus naa ko wax un jour li yàlla na innal munaafiqiin fil darqil asfali mina naar yàlla nee na naafiq yi yomul xiyaam xam nga fan laa leen dugal ci xuuñu safara ca taatu safara laa leen yóbbu li gën a bon ci àdduna mooy porte parole boo xamante ne je suis là pour pour répondre pour défendre ça veut dire même buñ la indilee ay fen nga xamante ni liñ lay wax fen la sax fen yow da nga ko bëgg a défendre ak li yàlla wax ci fen ça veut dire nafiq weesuwul loolu ay fen taxaw nga ne fen yi da nga koy sol yëre da nga koy rafetal ça veut dire les plus man pour man ñi gën a bon ci Sénégal si nga bokk lo xamanteni kenn mënu ko défendre yalla bëgg ko sax nga taxaw yow di ko défendre di ko dëggal lu dul dëgg. Naby Vision. en plus gis na am ñu dem ci pré ci ci sëñ bi man dina naa duma wax ci xalif yi man sëriñ yi duma ci wax dara parce que ku nekk ak la nga gëm dina naa la ilaha illallah yalla la gëm muhammad rasulullah yenente bi mooy yenenteem tu wakkaltu allah denk na sam bop yalla kep ku yalla jox xam-xam def alquran sa yaram dama lay ñeental xam ne du ku nekk la ko yàlla di may damay xam ne yaa ma gën parce que yàlla nga wax ki gën mooy ki ki ki jàng diine di ko jàngale. ça di man ñi nga xamante ñoo ma gën Sénégal kenn mën leen compter ñi gën a bon gën a yées laa bokk mais président Ousmane Sonko xam nga lan moom ma gën a naqari bira euh, kii Fafana di tontu. moy intellectuel yi def pétition pour ñu libérer Ousmane Sonko muy naan non ñooñu buñ koy def xawma ma lan ce qui m'a fait mal moy sa façon de répondre yow va te faire foutre Abdou Karim Fofana ak yeen sénégalais ak question bi ngeen di posé ak bi ngeen demee ci xalif bi aussi dem di ka ñaan kiyel na jox Sonko na lekk bu mu lekk mais c'est c'est pas ça le sujet ya rabbi nabi Vision eh Allah akbar c'est pas ça le sujet le sujet mooy Ousmane Sonko dankaar tooñ tëj ko tëddu yoon looloo war a nekk but bi nekkul ay affaire noonu na lekk bu mu lekk na génn naa wax ak kii day mel nekkoon kon liñ ko teg c'est quelque chose de normal léegi dañuy ñaan jekk mais c'est pas quelque chose de normal am na leen naafiq ñi nga xamante ne Abdou Karim Fofana da ngay ibbi sa grande gueule di wax am na ñi comploté woon def seen film ba Sénégal yëpp dee deux mille vingt et un ba léegi anañu dama koy répété waat anañu yow doo wax ci loolu loolu du moo indi li fi am yëpp ba ngeen di jiñ Pastef ba dissoudre naan da ngeen a dissoudre si seen i wax naan ay da ngeen di tëj Sonko lii lépp li ko indi mooy yéen ak tooñal seen bopp lan moo tax yéen du ngeen indi sujet boobu teg ko xalif beeg ñëpp duñ indi sujet boobu teg ko ngeen nekk naan noonu na lekk dina dinañu wax dinañ arrangé mel ne li ñuy arrangé si quelque chose de normal quoi maanaam léegi nit da ngay def lu la neex ba pare léegi pour nga génn dañ war a arrangé mais loolu moo du dëgg li doon dëgg mooy comme ni ko xalif bi defee woon taxaw wax ñëpp di dégg carrément ak yeneen xalif yëpp wax ko génn ni carrément ñu ngi leen di ñaan arrêté leen di dinañ wax ak président mu leer nañ nu ñu génn ni ñaan nañu président dafa bañ basta wax ji dafa leer naññ wax nañ ko ko tontuwuñu yéen 2021 ba léegi ba ngeen bindee charte yëpp Macky Sall li mu waxoon ci la nekk de nee na sëriñ yi ay citoyen norme ordinaire lañu Macky Sall waxoon na ko nee nañu bañu demb suñu nango tay seeni pexé djubul jubul Macky Sall la waxon demb ci la nek c'est que des fois ñu bari dañuy mel xamuñu ko Macky Sall ak famen man dama leen xama xama xam ba c'est pas la peine nguur mo nguur mo leen jaral sen aduna dañ nan top khalif bi après dañuy pet suñu nguur après toog croiser suñu bras ñun toppuñu ko suñu nguur dal kuñ ko mëna protéger mën nan la ñew sukkel la jox la lo bëgg ci aduna mais kuñu bëgg xañ suñu nguur ñu commencé def lu neex. ngeen 2021 xalif bi bind ngeen bind wax lépp ba xalif bi wax ak Macky Sall ba sonn lu ne def na ko Macky Sall faalewul xalif bi Macky Sall wax naa leen ko bàyyi faal yi fi nekk di tëb di dal Macky Sall lii du ay ak du ay lu leer la yéen yéen fekke ngeen ko Macky Sall moo fi toroxal xalif général bàyyi faal yi toroxal ko bëccëgum narub kàmb ñëpp di gis kon tey dafa delluwaat ginnaaw kon pexe moo jubul sëñ Mountakha ñaanu ko bi 2021 wax bind charte wax ak moom wax ak moom ba tas Macky Sall ñëw gën a activer ay dossiers gën a pousse la sëñ ba doon ñaan mu ñëw ni ko maa tey dama koy sax tëj xanaa li gën a dee ngeen ñëwaat naan da ngeen demaat sëñ ba di ñaana dañuy tobaat ci Macky Sall di daw man ma waxatil leen ko. Naby Vision. man yi ngeen war di teg mooy lan mooy nday ñu jàpp naan dañuy tëj doomu jàmbur bi ñu tooñ. man ñu indi histoire ba lan moo tax ba léegi waxuñu seeni wax ci plateau yi télévision journaliste chroniqueur yu naafeq certains fils de pute yu ñu pay ñu toog di wax ngeen bu ngeen wax léegi ñu indi film bi yëpp anañu où son les les acteurs principaux anañu du ngeen lijjanti ji ñooñu xam ne ñu dee ñëpp fa la commencé c'est ça la la cause ngeen ni déedéet dañuy arrangé na Sonko nekk na son Sonko de bu lekkee commencer naan grève de fekk jeex na xam nañ ne élection présidentielle ci kasoog la kay fekk Macky Sall dafa faale ay ay waxi sëriñ ak waxi ñi ma wax leen ko waxaat leen ko abdou karim fafana moom bu nekkee daf day ibbi grande gëlëm di tontu ne ko ne rek di tontu kooku moom nitu naa fekk la antoine diom moom danga wax loo xam ak ismaïla madior fall le plus grand poltron du monde mooy ismaïla madior fall tapet te kooku mujj moo nar a gën a bon ñëpp mook antoine diom abdou karim fafana nag day yor gémminam rek di wax dina wax a wax wax ba ko ba ba dootul wax bu dee góor nag question yi ñu laaj na ci tontu na ci toog nag duul nga toog seen fen yu metti xool rapport yëpp a ngi fi ñu téye. te ni naa leen discours bi du ay Sonko day génn ak na lekk du lekk. discours mooy ñi li tëgg lii lépp ak li ko dugal kaso moo dul yoon loolu ngeen war a wax mu génn fa par force nekkul ay négociation te it du ay xeex loolu moo Sénégal yëpp ci war a jub.